ñan ñoo ko war a def waa ahlulaa yi ko war a def du ñu xaar kenn ñëw di ñu ko defal te ñun nag mën nañu ko ndax 1949 ba ñuy taxawal jàkki yoof mag ñi fi newoon bariwuñu woon te defoon nañ ko euh, daanaa dégg it sama baay Abdoulahi yal na yàlla yokk ay leeram mu daan wax naan est-ce que est-ce que indiwu fi yii boobu mu ngi wan taaru tante yi nga xamee ne moom la daan ronu waaye kon daf ñu delloo ci na la dina amunu wa amidu suñu borom mu ngi wax ak ay jaamam yi nga xamé né dañuy and ak seen pas-pas boole ko jëf kon jëf la soxla fépp fu way nek di ahlullah la nga man te attan ko ci la nga xamé né mom nga yor ci ci alal ju mu mëna doon bul xeeb bul yéem yëkkatil nga def ci ñu andando taral suñu bop yëkëti sunu bop ci dayo ak martaba ya nga xamé né mom la ñuy xaar ngir bu ëllëgé sanuy doom ba sunuy sët ne lii kat sunuy bàyyi ko fi ndax ñun nag fekk nañ fi fi bàyyi ak maam yi defoon wa axiru daxwaana ani alhamdulillahi rabbil alamin lépp nag ci xalifatu ndigalu xalifatul muslimin Seydina Mouhamadou Makhtar ibnu Seydina Mandione